mon frère je la vous féliciter parce qu'en quelques jours quelques jours nga réussir mobilisation pour mel Je loolu que je veux ñi da ngay un mouvement yi nekk Tëngéej man leen mouvement mel mouvements parce que dans l'élection élection mouvement voté nit ñi voté en quelques jours pour ne pas dire en quelques claquements de doigts nga réussir mobilisation bi suñ la des ay fan ni kon kenn du jardin ñu am ambition commune pour Rufisque Mon monnaie, je dama bëgg dans liggéey ci département bi département de Tengue, bëgg fa la postuler fa la être candidat man ma ne dama candidat à la mairie de la ville de Rufisque mu ñëw ne ma jàppale naa la ci sa candidature ma ko man tam la lu makoy ma raison yi bari na dama ci bëggoon wax rek ñaar wala ñatt bi pas moy wax nañ ko son profil intellectuel son profil d'expertise son profil professionnel développement urbain développer dëkk li nga soxla li jiitu ci li nga xam soxla ngeen ko kon profil comme ressource humaine mooy ko xamné xam-xamam match na ci walu dekk ak way té loolu nak moy urbanisme té dekk bu melni ne nak suñu bébét bi jitu suñu problème bi jitu suñu équation centrale pour parler comme les Français c'est un problème d'urbanisme et d'urbanisation

diko remercier ci limu jël décision ñëw ñu and pour dem ci élection yi pour liguey Tëngéej ville et Tëngéej département ku nek li nga waroon woné pour woné ne am nga représentativité ba war nañ la investir woné nga ko ba pare pour l'instant fi ñu toll ni li ñepp wara def gor yëpp war ko def militant discipliné yi war ko def ñi and ak président Macky Sall gëm ko déggal ko war ko def moy nak déglu président de la république Macky Sall ndax mom moko wax ci Kaffrine mom mo ni ci Kaffrine élection yu ñu jëm ni nek na élection yo xamanteni dafa am solo solo bo xamanteni ni investiture yi duñ ko fooye duñu def lañu defon 2014 2014 dafa ne ku bëgg a candidat nga nek candidat nee bi pa du demee nonou investiture d'un dañ koy def de façon rigoureuse investiture dañ koy tek ci yoon duñ ko def dans le désordre ba nga xamanteni li ñëwoon fi xew fi Tëngéej en 2014 moy xewaat moy lan moy président Macky Sall am fi majorité Benno Bokk Yaakaar majoritaire fi ñu dem élection Tassaro, opposition bi ñëw ramasser victoire loolu duñ ko nam